di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ak ci waxtu wu tedd bi ci barabu tedd bi ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu jégal di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wattul nu kilifa gu màgg gi nekk ci suñu kanam yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba mu àggale mboolem mébét yi nga xam ne sémb na ko ci yoon wi di ko sëmbal diine di ko sombal sémbal yoon wi mu àggale ko yépp te ñu ànd ko ak moom xam nañ ne ci jum ajuma yi wéy jiitu lool doon nañ waxtaan ci bunt bu mag boo xam ne dafa am ay bunt yu ndaw yu ci soqi ko bunt bu mag booba mooy wattu sunuy cër juróom-ñaar juróom-ñaari cër yi nga xam ne moom la yàlla bindal doom aadama mu di ko jëfandikoo ci lu bari wattu guñ ko war a wattu ak sàmm guñ ko war a sàmm ndax ci xéewal yu mag ci xéewal yi sunu borom yi tabaraka wa la bokk nga xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu koo dajal wa in taxuddu nimatallahi la tuxsuha waxoon nan ne cër yooyu kat ñun ñëpp ay ñoom ñëpp ay responsable lañ yoo xam ne bu ëllëgee suñu borom tabaraka wa daf leen di laaj leen xisaab ci liñ doon def ci àdduna inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula naka noonu cër yooyu itam dañuy seere seen bopp wala ñuy seere seen borom bu yomal xiyaamee cër bu nekk da jóg di wax la nga doon def yow day mel ni dañuy tàqale nit ki ak i cëram cër bu nekk euh, di wax lam doon def loxo ba di wax lam doon def tànk ba di wax lam doon def nopp ya di wax lañ doon dégg kenn ku nekk ci yi di wax waxal sa bopp la nga doon dégg la nga doon def yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun ndax yàlla mi leen bind moo leen mën a wax loo ñu wax wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi bind yépp te am kàttan moo ñu wax loo ñuy wax kenn ku nekk di wax la nga doon def loolu nag kon solo su mu am ak rëy googu mu rëy moo tax ñu war koo waxtaanee ci jamono yu nekk ci saa yu nekk solo boobu mu amit moo tax Cheikhul Xadim mi nga xam ne du bàyyi dara lu am njëriñ te xamulu ko taalibe yi dara lu am lor te wattandiku leen ko mu soññ ñu ci bu baax ci téeréem ba na mun tasawul shubaan soññ ñu ñu wattu cër yooyu wal taxfasul aada a batnun wa lisaan farjun wa rijlaani wa aynaani yadaan saabiuha udnaani man laha raa an il maasi kulliha yantafia juróom-ñaari cër ngi ni yoo xam ne war ngeen koo sàmm war ngeen ko wattu muy sa biir wala sa lis làmmiñ sa pëy say tànk say gët say loxo say nopp mu ne benn bu nekk ci bunt euh, cër yii dafa am benn bunt bu mu jàkkaar lool ci juróom-ñaari bunti sawara yi nga xam ne ci la ñuy duggee sawara benn benn cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo ak benn bunt wal kullu minha jumlatan qad qaabalat baaban min a niira min a niiraani fii ma qad sabat benn bu ci nekk daa jàkkaarlook benn bunt ci sawara juróom-ñaari bunt ci sawara juróom-ñaari cër wa man yakun xaafidaha laa yadxulu baaban min al bibaani fii ma yanqul yunqalu képp koo xam ne nag yàlla dimbale na ba nga wattu sa juróom-ñaari cër yooyu yàlla dana la musal doo dugg benn buntu ca bunt sawara yooyee nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo leen tollale waaye ku ca moy ku ca moy benn nag ku ca moy ci benn cër bun cër boobee bunt ba mu tollool moom ngay dugg ëllëg aadana allahu minha wa man asal mawla bi udwin abada fa baabuha baabu azabihi gada kon loolu lu lu rëy la loo xam ne bunti sawara ni mu toll bu fekkente ne cër yi dañ leen seddee benn cër bu nekk ñu séddee la benn bunt ku ca jëf lenn bu ëllëgee luy lu def safaan ci bunt boobee ngay tàbbee sawara ahadana allahu minha wa kullukum yusalu an rayin raa kama ata bihi xadisun man man waxa ñun ñëpp ay responsable lañ yoo xam ne dañuy laaj li nga xam ne moom lañ doon def ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kon cër yooyu lu am solo la loo xam ne saa su ne war nañ ci bàyyi xel saa su ne war nañ koy sàmm waxoon na ñëkk ci waxtaan yu njëkk yi ñaari cër yu njëkk yi muy làmmiñ ak nopp wala dégg ak wax dégg ak wax waxoon nañ ci solo suñu xam ne am nañ ko solo ak lor yoo xam ne mën nañ koo lor nit ak njariñ yoo xam ne mën nañ koo jariñ nit ak naka lañ koy wattoo ba mën koo jariñoo tey nag bi ñu ciy teg mooy cirub gis al aynayn al aynaan ay gët yi la yàlla wutal defal la ko muy jumtukaay bi nga xam ne ci ngay mën a xoolee ba xàmmee mbir yi jumtukaay boobu am solo la boo xam ne xam am solo gi am solo kenn mënu koo xam lu dul ku ko amoon ñàkk ko ki ko amoon ñàkk ko rek mooy xam solo si nga xam ne ay gët am na ko solo ak njariñ li nga xam ne mën na koo jariñ doomu aadama muy xéewal gu màgg ci xéewali yàlla yi nga xam ne mm, defal nanu ko euh, te wone na ne it xéewal la goo xam ne war nañ ko cee sant ndax fu mu toll ci alxuraan mi ñuy ñaax di ñu fàttali ne ay gëddëy aku làmmiñ akum xel xéewal la goo xam ne man maa leen ko xéewalee te war ngeen ma cee sant alam najal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu kon gët yooyu sunu borom tabaraka wa taala jàppee na ko xéewal gu mag goo xam ne mi ngi ñaax eh, eh, jullit yi ñu xam ko te sàmm ko te sante ko sant ko ci muy xéewal goo xam ne yayoo na ak cant bu baax ci ki la ko may mu yàlla suma sunu borom tabaraka wa taala wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a wa jaala lakum alsam'a wal absaara wal afidata laallakum tashkuruun nee na yi yépp ma leen ko defal defal leen ab dégg defal leen ab gis defal leen am xel ngir rek ngeen sant ma ngir rek ngeen kañ ma te jox ma li ma moom kon bokk na ci xéewal yi nga xam ne yu yayoo ak cant la bokk na ci xéewal yi nga xam ne yu yeyoo njukkeel sunu borom tabarak njuk njukkal sunu borom tabarak wa taala jox ko ci li nga xam ne moom la yeyoo wéetal ko ci eh, eh, magal ko ci kon war gun war a sant nag naka lañ koy sante moom sunu borom tabarak wa taala ci cër yooyu waxoon nañu gis xéewal la goo xam ne kenn xamul solo sim am lu dul ki ko amoon ñàkk ko waaye xéewal gu nekk nag la koy tax am solo mooy lay tax euh, na nga koy sante di cant gu dëppoo ak moom mooy day dëppoo ak xeetu xéewal googee xéewal gu ne xeetu xéewal ga mooy doon ak cantam xéewalu alal joxe mooy doon ak cantam xéewalu wér jaamu yàlla mooy doon ak cantam waaye xéewalu làmmiñ wax ju baax mooy doon ak cantam xéewalu nopp déglu lu baax mooy doon ak cantam waaye xéewalu bëttam euh, xool lu baax seet lu baax mooy doon ak cantam naka lay nekkee ak cantam noonu itam weddi itam weddi yàlla itam wala xarab yàlla munta weesu cër yooyu nga def ci leneen lu wuute ak lala ci sunu borom tabaraka wa taala digaloon kon war nanoo sàmm cër yooyu ba def ci leen nu digal waaye war noo sàmm cër yooyu it ba ba ci li nga xam ne moom la ñu tere bañ koo jege bañ koo euh, def benn yoon cheikhul xadim radiallahu taala anhu euh, yàgg nañoo leeralal loolu boo demee ci Munawwirus Sudur ak yeneen téere bi yépp ci bare bari leeral na ci euh, li nga xam ne moom lañ ci war a def ak li nga xam ne moom lañ ci war a bàyyi ci cër bi ndax moom ni muy def saa bu la waxee dara ne la baax na dalay wax nooy def ba mën koo def waaye saa bu la teree dara ba ne la baaxut lay wax nooy def ba mën koo wattandiku wala lañ la ci digal mu xamal la ko lañ la ci digal lañ la ci tere mu xamal la ko ba nga mën ko wattandiku lañ ci digal mu xamal la ko ba nga mën koo euh, def nañ la ko digalee boo demee ci mun Munawwirus Sudur ma ngay wax ci ba mu àggee ci buntu bët dafa ne bil ayni laa tandur li cheyin xurima wala xaruma bal wuddaha anhu takun muxtarima mu ne bëb bii day bul ci xool mukk lenn loo xam ne lu ñu araamal la lenn lu araam luñ tere loo xam ne yàlla def ne bu ko kenn xool kenn waru koo xool ci ay gët mu ne kon wuddaha na nga na nga damm sab gis nga nekk ku ñu ormaal na nga damm sab gis loolu nag ma junju aaya ba sunu borom tabaraka wa taala wax ci alquran ne qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfadna furujahun sunu borom tabaraka wa taala foofu daf nu fee digal ne yéen jullit yi na ngeen damm seenub gis te wattu seen pëy boo gisee mu boole ñaar yooyu nag dam sab gis mooy musal nit mooy mooy may nit wala moo koy jàppandal mu jëf li ci des muy wattu pëyam ndax lu baree bari ci lu mel noonu mi ngi juddoo ci ab gis mi ngi tàmbalee ci ab ab gis mi ngi tàmbalee ci xool xool boobu nag mu wax na ko euh, yaxuddu min absaarihim yemut ci xool jigéen rek wala yemut ci xool ku araam ci yow rek waaye day làmboo xool lépp lu araam nga damm ca sab gis yaxuddu min absaarihim dafa yaatu lool lim làmboo bari na lépp loo xam ne araam naa gis araam naa xool yaxuddu min absaarihim day dugg ci biir moo xam jëmm ju ñuy xool la moo xam photo bu ñuy xool la moo xam euh, film yu ñuy xool la ak lu nuroog ñoom ci yoo xam ne gët mën na koo gis gët mën na koo seetlu Thank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

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد sunu xam ne moo moom la nu sunu boroom digal nu damm sunu gis te sëriñ bi feddali ko ci bayit woowu damm la boo xam ne lépp lu araama xool da koy làmboo moo xam jëmm la moo xam foto la moo xam nataal la walla film la walla lépp loo xam ne rek lu bët di mën a gis la loolu nag jamono yu nekk mas naa am lor waaye jamono yi ñuy toll nag ci la gën a amee lor ndax léegi jumtukaay yi koy mën a def daa bari lool ndax bu njëkk ku mosaan bëgg xool lu bon xëy na boo gisu jëmm ji da ngay dem wëri ko mu xaw laa jafe nga mën caa jànkoonteeg ay coono waaye léegi nag yomb na lool nga toog ci sa biirum néeg wala nga toog ci sa biirum saal ñu di la won boo bëggee ak boo bëggut yépp ñu di la won loo xam ne lépp lu yàlla araamal la lépp lu yàlla sib la loo xam ne eh, ab jullit waru koo seetaan kon ñu war a def attention lool ci loolu ba nga xam ne sàmm suñu bopp sàmm suñu njaboot ci mboolem li nga xam ne dañ koy seetaan ci jumtukaay yu bees yi te du nekk loo xam ne lu ñu war a seetaan la ndax euh, euh, bët euh, mooy jumtukaay bi nga xam ne xol daf koy jëfandikoo day mel ni bët ak xol dañoo am connexion boo xam ne lu lu laal ci bët rek day jam ci xol day wër day dem ci biir xol bi waxee day mel ni dafa am lu leen boole ñoom ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna inna nazara sah sahmun masmumun min sihaami iblis fa man tarakahaa xawfan min allahi ataau llahu iyaa imaanan ataau llahu imaanan yajidu xalaawatahu fi qalbihi nee na ab xool xool gis xool benn fett la ci fetti seytaane yi nga xam ne daf ko posone posone ko moom ibli moom iblis moo ko posone képp koo xam ne bàyyi nga ko moom xool boobu ba defoo ca lu araam yàlla dana la jox gëm yàlla goo xam ne da nga ca yëg bànneex boo xam ne danga nga yëg bànneex bu rëy rëy boo xam ne moo ne ci gëm yàlla danga nga ko yëg te bànneexu gëm yàlla ku ko yëg dara dootu saf ci yow dara dootu neex ci yow bokk na ci li ñuy nettali ne ab hadis la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax wala asar la mooy ne inna rajula la yanzuru nazrata yanxallu biha qalbuhu kama yanxallu al adimu fi dibaax laa yuntafau bihi abada nee na benn waaye ngi nii de boo xam ne dana xool benn xool rek benn gendiku rek boo xam ne ab xoolam dana ca yàqoo ni nga xamee ne ni la ni la ni la ab der di yàqoo buñ ko wullee ab der buñ wulli na muy yàqoo ak na muy soppi ko nee na ab xool dana soppi xol ba def ko noona kenn du ko mën a jariñooti moom sëriñ bi mu dellu waxaan ñu ne qad mana ar rasulu sallallahu alayhi fi l ali wa mawalaau min nazratin ila saxifati axi bi geyri isnihi tanibhu yaa axi nee na bokk na ci li ñuy tere ci xool yim lay gannaaw boo dammee sa gis ba noppi bokk na ci li ñuy tere ku ko xool mooy téere téereb jàmbur wala leetarub jàmbur boo xam ne la ca ne borom bëggul ku ko gis wala sax ñu yaatal ko ba ci téereb jàmbur ak yëfi jàmbur yu mu mën a doon yoo xam ne borom bëggul ku ko gis loolu euh, tere nañ ku ko xool te amoo ci ndigalal borom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu ne man nazara fi kitaabi axihi bi gayri isnihi fa innama yanzuru fi naar nee képp koo xam ne xool nga sa téere mbokk xool nga sa leetaru mbokk boo xam ne la ca nekk bëggul nga xool ko te digalu la ko nee na yaa ngi xool sawara la ngay xool day mel ni yaa ngi xool sawara te ku xam xool sawara xam ne lu rëy la lu lu lu lu lu am lor la euh, kon noonu ñu ko waxee loolu mën naa tekki leetar mën naa tekki ak message bu ñu def ci ab téléphone mën naa tekki lu baree bari loo xam ne nit ki bëggul ku ko gisal loolu lépp loo xam ne nit bëggul ku ko gisal rek dañ ko war a wattandiku di ko xool te du du du du du banee xam bool ci ne kon yim la tere mooy nga damm sab gis ci lépp loo xam ne waroo koo xool dafa araam ci yow nga bañ a xool yi fi jaamur yoo xam ne borom bëggul ko ko xool loolu lépp eh, eh, bokk na ci yi ñuy tere mu ne nag yi ñu ciy digle nag léegi lan nga war a def ci bët bi gannaaw boo ci bàyyee yi ñu la tere mooy xat xuli xat laka li kay tahtadiya fi zulmatin biha fala tastadiya nee na bët bii yàlla daf la ko bindal ngir nga di ci eh, gindiku ci ak lëndëm bu lëndëmee nga di ci gindiku ku xam xéewal gu mel noonu kañ ko xañ nga xam ne xàmmeewul guddi ak bëccëg yow mi ko may nga mën a xàmmee guddi ak bëccëg loolu xéewal gu rëy la goo xam ne ku ko am war koo sàmm ndax guddeeg yàlla sunu borom tabaraka wa taala nee na man rek maa leen mën a defal guddi man rek maa mën a defal bëccëg qul araaytum in jaala allahu aleykum layla sarmadan man ilahun gayrullah yatikum bi diyahin afala tasmaun ne su ma fa guddi guddi képp am guddi rek am bëccëg amut kan moo leen di indil ak leer ku dul man kenn kenn du leen indil ak leer ku dul man te mënoon naa ko waaye su ma leen indil loon bëccëg kenn amul guddi nan ngeen di amee guddi ba man cee noppalu ba man cee féexlu noppal ci seen yaram kenn mënu ko ku dul sunu borom tabaraka wa taala kon guddi ak bëccëg xàmmee gi nga koy xàmmee ba mën a yëngu ci bii ba mën a noppalu ci bii xàmmee googu bët moo koy def ka amul ay gët munta xàmmee guddi munta xàmmee bëccëg beneen ba ci des mooy dimbandikoo ci lii say soxla yi nga xam ne soxlay farata la soxlay aajo la yoo xam ne yu ñu war a dimbandikoo la nga dimbandikoo ci say bët ci loola wa fi bi stain biha fala bi biha nasrata aasin gafala waaw bët mooy faj ay aajo yi nga xam ne bët rek moo ko mën a faje moo ko mën a faj xàmmee nit ñi kii mooy diw kii mooy diw xàmmee melo yi ni daa weex daa ñuul daa xonq mën a yëkkati sa bopp dem demal sa bopp yóbbu sa bopp fu la neex te kenn du la yóbbu jàng ay téere ak njariñ yu bari yoo xam ne bët am na ko ñu mën ko caa jariñoo tamit tamit tamit lu am njariñ loolu ca yooyu lañ ko war a jëfandikoo yoo xam ne yuy jural nit ki njariñ la te du ko jural ay ay lor waaye bu ci xool lenn loo xam ne luy nuru ak moy la wala loo xam ne luy nuru ak càggante la ba ca mujj nag mooy la nga ca war a jëfandikoo mooy nag li li nga xam ne moo gën a rëy ci li tax yàlla bind bët wala yàlla def ab gis defal ko nit mooy mu xool ci kiimaani yàlla yi nekk ci univers bi waaw kiimaani yàlla yi nekk ci mbindeefam yi lim bind moom yàlla kiimaan yi ci nekk nga di ko ci xool di ci yéemu di ci yéemu ndax kiimaanu yàlla kat yàlla ak amam ñi ngi koy xamee ci ñaari mbir rek mooy eh, kiimaanam gi nga xam ne dañ koy jàng ak kiimaanam gi nga xam ne dañ koy gis kiimaanu yàlla gi ñuy jàng mooy alquranul karim alquranul karim moo ñuy moo ñu xamal ne yàlla lu am la ci biir alquran da nga ciy ay aaya yoo xam ne day xam le ne yàlla am na shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist wa huwa allazi fi lsamahi ilah fi l ardi ilah fi lsamawati wa fi l ard yooyu yëpp ak yu moom day tegtale ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci alquran ne moom lu ku am ku nekk la kon alxuraan jooju ci boppam mën na sa ca tegtaloo amuk yàlla waaye am na yeneen kiimaan yoo xam ne tam mooy yi ñuy gis nag yi nga xam ne moom yee dañ koy jàng waaye bii dañ koy gis mooy mbindee fi yàlla yii mu bind ci kaw ci ci àdduna bi asamaan si suuf si garab yi doj yi lépp yëpp yëpp yëpp loo gis rek kiimaanug yàlla ma nga ci fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu waaxidu loo romb rek mën nga ci xalaat ba xamee ci amug yàlla ak kattanug yàlla sunu borom tabaraka wa taala soññu ñu ci alquran ci aaya yu bari ñuy jëfandikoo sunu gis ngir mën a xalaat amug yàlla gi mën a xalaat kattanug yàlla gi afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma xalaqa allahu min shay qul unzuru ma saa fi samawati wal ard wa ma tuxni al ayatu wan nuzur an qawmin laa yalamuun afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat qul siiru fi l ard fanzuru kayfa kaana al aqibatu al mukadibin yooyu yëpp sunu borom tabaaraka wa taala daf ñuy wax ñuy jëfandikoo sunu sunu gis di ko xool ngir di ci mën a xalaat yàlla nguurug yàlla gii asamaan si ak suuf si euh, ak li ci li nekk ci seen diggante yépp ak xool gëléem ni ko yàlla bindee ni mu kiimaanee nga xool doj yi ni ko yàlla bindee ni mu kiimaanee ni mu ko sampee ci kaw suuf nga xool asamaan si ni ko yàlla yëkkatee te amul ay kanam amul dara nga xool suuf si ni ko yàlla tàllalee ba nit ñi mën cee faj seen ajo nee na loolu lépp ay kiimaan la yoo xam ne ku ko xool dana la tegtal ne amuk yàlla gi waaye dana la tegtal kattanu yàlla gi yooyu ma yooyu mbindeef yépp yu yéemu yoo xam ne li muy tegtale mooy xaaliqun wa mujid allahu mujidu bi xeyri mujidi fa innahu mujidu kulli mujadi yàlla moom ko am la te moo amal lu am lu am rek yàlla ko amal loolu buñ ko buñ ko seetloo danañ gis ne arab yi ba nga xam ne ab sàmm la rek boo xam ne jàngul xamul dara sax waaye bañ ko laajee ne ko noo def ba xam yàlla mu ne ni ma def ba xam yàlla damaa gis gëléem fu mu waaf ba ba ba jógee fa dana fa bàyyi lu wane ne fii gëléem waafoon na fi ah, eh, eh, nit fu mu dëkkoon wala mu jaaroon fa dana fa bàyyi loo xam ne dañ xam ne fii dëkkoon na fi ma xam ne nag asamaan sii am ay ay ay ay ay ay am ay biddiw ak yoon waaye suuf sii am ay yoon ak ni ko yàlla organisé ak ni mu ko doxalee ak lépp ni mu jaaree ci aw yoon loolu daal li muy tegtale mooy am na ku ko amal te mooy al aliyul xabir loolu mënut a am loolu rek ci sut sut fa rek faw rek am na lu ko amal te ko amal li ginnaaw yii bu amee am na lu ko amal gëléem la muy bàyyi mooy wane na am na waaw leneen la ci des la muy fa muy jaar mooy wane ne am na asamaan si ak suuf si tam ak seen kiimaan yi ci nekk te dana tegtale ne am na ko ko amal kon loolu daal mooy gët yi ñu war koo sàmm bu baax te wattu ko te lépp loo xam ne yàlla digle na ñu def ko ci ñu def ko ci lépp lu yoo xam ne yàlla tere na ñu ñu ko ci ñu bàyyi ko ci yàlla yàlla dimbale te sàmmal na suñuy bët sàmmal na suñuy làmmiñ sàmmal na suñuy nopp ba nga xam ne duñ ci def lenn loo xam ne duñ ci warta def la yàlla dimbali ñu tam bañ def ci li nga xam ne moom lañ ci war a def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu الله محمد أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وصرف المتبعين للسنة تسريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين للسنة عند ذهاب الدين وفساد أمته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 تمسكون في يوم حساب لا عمل فيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

الحمد لله غافر الذنب ساتر العيب قابل التوبة سديد العقاب فاتح أبواب الإجابة لمن دعا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فيا سعد من سبقت له الحسنى ولطاعة الله سعى نشهد أنه الله الذي فتح بخاتم الأنبياء من الخير كل باب صلى الله وسلم عليه وعلى ما له من الآل والأصحاب أما بعد فيا أيها الناس من أراد أن يكرع في مناهل الصفا فليتق الله وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى فقد أمرنا الله بذلك لننال أجرا عظيما فاعمروا بذلك هذا السهر الجليل وبالنوافل الطاعة وبما أمكن من الإحسان بقدر الاستطاعة قال عليه الصلاة والسلام الجنة لكل تائب والرحمة لكل واقف فالتوبة إلى الله مفتاح أبواب الرحمات والإنابة إلى الله سبحانه hiya asaasu sa ibaadaati wal qurbaat lam tazal manhalan kariman yatawaaraduha al asfiyaa wa saraaban tahuuran saraabi alxaarifiina billahi wal atqiyaa wa hum yatadarracuuna ila allahi bil inaabati wal istigfaar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 فقائنا قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله تظلمان حميد تسقي ماء ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين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 allahu akbar allah